bi ëmb ñiy liggéey ci pétrole ak gaz mer nañ ba futt rek jëmale ci seeni njiit yi nekk ca SGS gannaaw ba ñu lankee ngir rek ñu defal leen ab convention bu ñu xaatimoon ci atum 2019 la bépp liggéeykat bu féetee ci seen secteur boobule. dañu amoon convention collective boo xam ne ñu ko def ci 2019 convention bi génnee. SGS appliqué wu li ñu daan wax mooy xaar leen ba ngeen arrêté d' extension parce que xam bu ñu signé ñëpp duñ nekk ci table bu ñu paree nag autorité mooy génne arrêté d' extension mu nekk force de loi mu ne gars yi yéen ñi bokkuloon ñëwuloon ci table yi appliqué kenn mënul am sañ-sañ bañ ko bañ leen ko joxee ñu ne ñu waaw léegi jox ngeen ñu may leen ñu tuuti ñu xool ko ñu may leen ab diir ñu dellu si nañu ñu ngi kayit yëpp am nañ procès verbal day ñooñu def yëpp dañu léegi nag mbir mi mën nañ ko mais ko appliquer pour ñëpp dañuy jël benn pàcc rek jox leen ko ñun leen déedéet loolu ñoom liggéeykat yi di naqarlu noppik inspection général du travail nga xam ne jëbbal nañ ko mbir mi ngir ñu amal ci ab àtte waaye àdduwuñu ci benn yoon bi ñu demee inspection ñu xamal ñu ñoom ne dañoo am yeneen activité dans les régions inspecteur bi ne ñu non donc moom mënu ci wax muy suñu njaatige suñu ak tutelle technique mais ba ñu leen bindee ba léegi waa direction bi wax dëgg yàlla yënguwuñu gisuñu fu ñu joxe réponse ndeyteefu pétrole ak gaz taxaw nañu temm ne duñu rekk nangu benn yoon ku ma am ndey wala ku ma amul ndey gi ñu nemmeeku ci biir personnel bi ba tax na ñuy woo njiit yi ngir ñu amal atte ci seen digganteeg waa direction bu SGS lu ko mooy daañu banque seeni yoxo moyens légaux léegi nag ñu ngi xaar administration direction générale ñu gaaw répondre ñu au parti parce que loolu mooy yoon wax leen ñu jox ñu suñu yelleef ñu dem ci bu àtte boobu nag mënut a gaaw boo moyul nag ndeyteefu pétrole ak gaz daañu dakkal seen liggéey bu ministère du travail taxawul rek ngir seen njiit yi jox leen seeni moomeel seen secretaire général bi nag mi ngi woote ko waxtaan ngir ñu saafara seeni jafe-jafe